maître Amadou Diallo moo jiite Amnesty International bu Sénégal maître Diallo ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ñu am mbégte dalal ci waxtaan wi tey euh, alors euh, maître euh, situation réew mi waral Amnesty International gi nga jiite ak yeneen kuréel ànd génne ab bataaxal jagleel ko njiitu réew mi mën nga ñëw dellu sil ci li ngeen wax ci boobu lay bataaxal. xam nga tey réew mi ni mu demee ni kenn nattablewul ko Sénégal. musul am en man ci lu ma dund ba léegi musul am situation bu bi nga xamante ne dafa mel ni jàmm dafa narmeelu boo te ñuy jàpp ni euh, ñun waa Amnesty ak yeneen organisation de la société civile jot na jiitu réew mi yëkkati kàddoom pour woote jàmm ñu jàpp ni tey Sénégal euh, jàmm pour mu dellusiwaat Sénégal bi nga xamante ne réewu jàmm la réewu dialogue la pour jàmm dellu si waat il faut que ñu libérer bay Ousmane Sonko ak ñëpp ñi nga xamante ne jàpp nañ leen ci manifestation yi. Hmm. parce que dañuy jàpp ni Ousmane Sonko lu ko tuumal mooy euh, trouble à l'ordre public ak euh, participation ay manifestation interdite maa ngi dëgg tamit ni ñu ngi koy euh, bëgg a tuumal appel à l'insurrection jàpp ni fay nu mu demee loolu tuuma taxawul. ci yoon moo tax ñu jàpp ni tuuma yooyu dañ ko war a dindi bàyyi Ousmane Sonko ak ñëpp ñi nga xamante ne dañ lañ jàpp si yooyu ñibbi seen kër ndax jàmm dellu si waat Sénégal parce que jàmm kenn mënu ko weccoo ak dara tey Sénégal fu mu toll nii jàmm rek moo ko war et jàmm jooju euh, libération Ousmane Sonko. war na ci mën a joué euh, bu baax a mm. noo jàngatee noppi président de la république gannaaw yéen a ngi sàkku mu yëkkati kàddu. woy noppi ji jaaxal nañu bu baax a baax a baax waaye nag am yaakaar ni euh, waxu kilifa du yomb jàpp ni aussi peut-être day jël maximum d'information euh, préparer discours bi nga xamante ne euh, su ko waxee sénégalais yi mun na dal ci xol yi ba jàmm dellu si mm-hmm. loolu lañ yaakaar moo tax ñi xar suñu tànk tubéy pour mu yàgg ci jàpp ne aussi kilifa diine yi ak ñëpp ñi nga xamante ne am ñu baax ci dëkk bi ñu ngi liggéey dans ce sens là. Hmm. démb ki yëkkati kàddu mooy euh, ministre de l' intérieur Antoine Diome ndax li mu wax yéen dal na seen xel par rapport ak fi réew mi toll. waaw man xaaroon naa lu ëpp loolu parce que nit ki euh, sooy wootee jàmm euh, waroo wax ak xol waroo wax ak xel te aujourd'hui warul toog di tëkk sénégalais yi leen di menacer parce que loolu fajul dañ gis ni. état bi jaay doole bi du solution parce que tey seetlu nañu que même force de défense et de sécurité yi euh, mu attanuñu euh, euh, colère population yi moo tax ma jàpp ni plutôt que di menacer ñu woote jàmm ñu wax ñëpp ni ñuy dalal seen xel dellu soit seen xel donc aujourd'hui ministre lu mu wax ni ci benn app benn parti mun nañ d'accord ak moom parce que simplement Euh, sénégalais yi am nañu droit manifester mais amuñu droit yàqal ñeneen ñi parce que droit de propriété droit fondamental la tamit donc état de Sénégal nga xamante ne moom moo am responsabilité aar ak ak leef doomu aadama yi ñëpp war na mën am taxawaay bi nga xamante ne euh, kenn du loru ci manifestation parce que ñu xam ne démocratie mooy képp ki nga xamante ne am nga sa xalaat am nga sa bëgg-bëgg war nga ko mën a wax déglu la lool nag état moo ko war a assurer lu xew Casamance Ziguinchor en particulier ak les femmes de des bois sacrés ou des femmes de la Casamance wane na ni Sénégal nguur gi su ko bëggee nit ku nekk ak boor bu mu nekk war na mën a wax xalaatam te ñu aar ko ci loolu noonu hmm. donc euh, usage bi cest à euh, utiliser doole pour nëppiloo nit ñi loolu ma jàpp ni loolu c'est pas une bonne solution hmm. waaye nag ci beneen côté Euh, il a parfaitement raison ñëpp ñi nga xamante ne kay nekk ci affaire yu banditisme yooyu yoon war na mën a dal seen kaw. Hmm. mais nu ma ko xalaatee sax mooy euh, chaque chose en son temps. Hmm. instant yi nii lu ñu a woote mooy jàmm woote jàmm bay Ousmane Sonko bi ñibbi këram si boobaa je pense que jàmm su ñëwee ci loolu yëpp xëj même justice mënul exercer wu ci fitna. Hmm. donc nañu teg fitna bi fële woote jàmm ak ci boobaa nag. après yoon commencé déroulé. Mhm. fitna gi am na niveau bu mu yegg ndax ay bakkan rot nañu ñu tuumaal takk der yi ci wàllu woowu ne dañoo jëfandikoo ay armes loolu yéen lan ngeen ciy wax. loolu ñu ciy wax mooy euh, force de défense et de sécurité ñoom tamit war nañu def euh, attention parce que euh, seetlu nañu que si ñoom am na ñu leen rax te ñooñu tamit ñoom mel ni dañu jalgati yoon parce que violence légitime. état rek moo ko yor mooy euh, takk der rek ñoo ko mën a exercer ci kaw population yi mais takk der yooyu suñu nangoo ay nit yi nga xamante ne du ñu takk der ñi bokk bokk ñoom ñu def ak yi nga xamante ne gars yi yeneen sénégalais je pense que loolu yoon war dal seen kaw hmm. ñu woote tamit force de défense et de sécurité yi dem ak seen xel dem ak seen xol ay sénégalais la ñu contre d'autres sénégalais donc du ñu ay noon ñoom seen rôle mooy assurer la sécurité publique le maintien de l'ordre loolu nag am nañ ay jumtuwaay mais jumtuwaay tamit suñ koy utiliser dañ ko utiliser de façon mesurée bañ a lor kenn parce que l'objectif final mooy maintien de l'ordre mm. public mm. yooyu gis ni yeneen jumtuwaay yu ñu utiliser yoon mayo leen ñu koy def ne tey ñeenti nit ñoo ñoo ñoo ñoo gaañu te loolu kañ ñaaw na si am na ñu naan ëpp na loolu loolu tamit ñu ngi woo état du Sénégal par rapport ak loolu ñu ubbi enquête ñu xam ñan ñooy responsable Eh, ñu ñu ñu ñu jëbal leen mhm. alors am na itam ñuy ragal euh, mbir mi dem ba ëppi loxo ndax terrorisme baa ngi nii ci suñuy bunt boo yi Malek li ko wër euh, ndax yéen itam yéen a ngi tiit lu ni mel. xam nga euh, comme ni koy waxee jàmm si si la lépp xëj. Mhm. mais fitna tamit lu bari mën na ci dugg. Mhm. aujourd'hui Sénégal instabilité bu muy dem dugg nii parce que soo xoolee force de l'ordre yi dafa mel ni affaire dafa leen ëpp loxo te loolu. je pense que état du Sénégal war na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax sous région Sénégal mu ngi ci benn sous région bi nga xamante ne euh, am na ay terroristes am na ay guerre civile am na lu nekk. daanaka ñun rek ñoo fi amoon jàmm. waaw dëgg yàlla donc jàmm jooju buñ ko yàq parce que fitna bi loolu loo waxee sànq lépp xëj na ci donc su amee ay fitna yu mel ni ay terroristes ak ñeneen ak ñeneen ay samba boy mën na ci dugal seen loxo gën a yàq mbir moo tax ñu naan aujourd'hui il est temps que de l' état état du Sénégal. jóg taxaw pour jàmm dellu siwaat te loolu lu koy waral lu koy lu koy sabab mooy Sénégal fu mu nekk nii ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ak ñu mu àndal ñu bàyyi leen ñib seen kër yaakaar ni loolu suñu ko defee rek jàmm dina dellu siwaat hmm. alors bu fekkee lii dafa wéy maître euh, gis nañu communiqué ONU démb Nations Unies di mbootaayu xeet gi euh, bu wéyee lan ci mën a fekk Sénégal ñaanuñu ko nag. yàlla na ci yàlla euh, musal mara day tàlli hmm. ma jàpp ni euh, comité gi boobu commune communiqué boobu mooy communauté internationale ñi mm-hmm. suivre Sénégal ñiy xool te fu mu nekk ni ay ak ak yelleef doomu aadama suñ ko nërmalee ay nit yi si gaañu loolu mën a tax Sénégal en tout ay membres des forces de défense et de sécurité ñu yóbbu ay solution pénale internationale loolu kenn ñaanu ko yàlla moo tax ñu ma ko waxee léegi rek il faut que Sénégal jàmm dellu soit mooy suñu kilifa bi mooy président de la République woote jàmm ndax yu mel nii bañ a sori ak su sori du baax ci kenn. Hmm. te xeex bi arrangé wul bépp benn Sénégalais muy ñu nekk ci euh, nguur gi ak ñu nekk ci opposition même les acteurs politiques euh, les acteurs économiques affaire bi arrangé wu parce que lii activité économique yëpp a taxaw. comme hmm. soo xoolee sax xale yu bëri jàngituñu xel yi dalul baaxul ci réew moo tax jàpp ni Sénégal jot na jot na dellusiwaat xel yi ndax jàmm dellusiwaat. Hmm. ay eh, cong itam am ci kam eh, ci kaw këru tasukaay xibaar yi yeneen i journaliste ñu leen di dànkaafu ak di leen xupp eh, Auchan ak yeneen bërëbu liggéeyukaay yoo xam ni jàpp nañu ne France ko moom itam ñu dal ci kawam loola mettre situation booba ana lu ngeen ci xalaat. loolu kenn mënu ko rafetlu parce que nu ma ko waxee sànq sénégalais bu am ay biyam am ay yëfam kenn waru ko yàqal et donc aujourd'hui ñooñu di yàq alalu jàmbur kenn mënu mënu ànd ak ñoom jàpp ni kon état de ce point de vue là na jël ay responsabilité comme foofu d'accord na ak ministre bi ñi wut leen jàpp leen yóbbu jébbal leen yoon et tamit euh, aujourd'hui ñun mënuñu nangu ñu nangu ñi attaqué organe de presse parce que si démocratie lañ nekk ku nekk am na droit wax lu mu xalaat organe de presse quel que soit ñu mel quel que soit position moom war jël kenn amul droit di ko attaqué état bi de ce point de vue war na protéger organe de parce que su su nekkul loolu eh bien day dërmaru démocratie démocratie il faut ñu nangu am war na mën a am divergence ku nekk am xalaat te mun ko wax te dara du ko ci kañ su ko waxee mu tooñ keneen su boobaa nag nit ki eh dem jubal kooku noonu si yoon hmm. donc waruñu nangu quand même ñuy ñuy ñuy ñuy prôner la la pensée unique parce que simplement am nu mag yow donc amoo droit wax loolu quand même Amnesty je crois que toutes les organisations de la société civile euh, fustigé nañ mhm. euh, lan ngeen yëg bi ngeen déggee ni ca Mbour euh, fippu yi tax na luy tollook ñaar fukk ñett ci ay nit yu ñu tegoon loxo rëccee ca kaso booba. oui loolu de tiitange rek parce que simplement day mel dafa mel ni affaire bi dafa ëpp loxo état bi donc aujourd'hui soo xoolee ñooñu génn prison dugg si manifestation xam nga lu muy jur mooy pillage ak de vandalisme te tamit ñu jàpp ni aussi acte de vandalisme yu bëri mel ay délinquants ñoo ñoo ci rax donc loolu moo tax ma ne fitna baaxul moo tax il faut ñu dellu soit xel yi dellu soit xol yi pour jàmm dellu soit Sénégal te loolu président de la République rek moo ko mën a def moom ci boppam bu nekkoon en tout cas le 31 décembre passé mais ki nga xamante ne su ko toppee mën na indi euh, jafe-jafe si réew mi moom da ciy teg jot na loolu mu def ko. loolu mën nañu ko concevoir sax ci état de parce que soo xoolee même poursuite procureur de la république yoon may na ko mu apprécier mais c'est-à-dire l'opportunité l'opportunité des poursuites. Mm-hmm. donc aujourd'hui poursuite bii bu ñu def contre Sonko gis nañu lu mu jur ci réew mi je pense war nañu mën a dellu ci ginnaaw. te mm. xibaar yi ñu mujjee jot sax ñu ngi wax ne léegi yamatuñ ci Auchan yi boutique gu koñ yi daanaka eh, ñu ngi leen di songu muy firndeel ni kon xëy na mbir mi rax na. jërëjëf euh, maître ñu gërëm la bu baax a baax euh, amoon mbégte lool dalal la ci matinalu tey réew euh, Rewmi FM maître Amadou Diallo jiite Amnesty International bu Sénégal. maa ngi lay gërëm madame Thiam di ñaan yàlla jàmm dellu Sénégal.